fii ci stadium bi duñ ta yem de gàkk doo ngi fi ak ki nga xam ne mooy booy dakaar ak yeneen i combat yoo xam ne tey Balde billaay boo duggee fii di nga xam ne a ah, Assane Ndiaye tëgg na tey làmb du mën a ñàkk kon bu la neexee nga ñëw dugg ci biir xool li Assane Ndiaye def borom Baol production. jël ambiance bi gaa yaa ngi tuus gaa yi waaw mooy tuus tasar na tigre mi gisatul de tigre jël na lu metti de xool ba tab tigre bi aaway ah doomu kurun am na ndam kaku digg na troisième combat de la soirée Garga à droite Eumza à gauche arbitre daa bëgg a soufflé arbitre daa bëgg a soufflé may ko mu soufflé waaye bàyyi ñu soufflé waaw waaw day soufflé Balde soufflé na Garga nga jàkkaar lool Amza moo la wan ginnaaw Garga nag li mu takk bari na moom moom bopp ba cat suufu tànk yi lépp da kaat daa mel ni daal takkaay amaatu ko cey ji làmb combat de la soirée na ko go droite moom Amza dara xewagul moom Amza dara xewagul a way war na garga ndombo dóor ko ay korosé buddi ko balde yëkkati ba biir weex fëgg ci suuf xool garga waaru na jogal ñibbi ndaama du laaw joom da koo laaw wàcc mu tàkk war ko ndombo dóor ko buddi ko door ko làmb ja jeex oh, ce ginnaaw Omzo ngeen jàkkaarlool soqute Kër Massar mbooloo Omzo écrit xam sa cosaan Mali Gak Gakou ñu ngi lewaatoo ñu ngi lewaatoo ñaari mbër yaa ngi lewaatoo waaye Omzo mi dey Omzo dem sikki moom la yor door na góos de Omzo sànni na góos de Omzo soq de ñu lewa ñaari mbër yaa nga ca soq ak om soo jël amagul soq ak om soo soq ak xeex ba xeex xeex daw na jël ko da dëggal loolu booy yàqu nga jëloon baax na combat bi yàgg na ay waay booy bëre leen jóge fii ey Omzo liñ la dóor dal na soq day jël te du ko gëm ñu ngay bëre de ñu ngay bëre de ay waay booy bëre leen wax ji daa metti na sànq ci combat bi mënoo tip waaw mais looy xalaat rokkos rokkos yi ci la bokk yaa ko digaale da nga koy da koy nangu ku ko sañe dang koy bëre waaye booy xalaatee rokkos kay bul bul bëre dóor rokkos da caa bokk di waaw parce que soq ne la jël tuddee boppam xale bi soq ngem gondiku boo xoolee om soo xam sa cosaan la jóge soq ko andi moom soq doo may jóge Kër Massar tudde boppam soq waaw dara kenn du ko kenn du ko rek. arbi nee na ñu bëre. xanaa ñu daanante rek. arbi nee boo xoolee fi mu ne ñoom ñaar ku ne am nga trois avertissement. waaw te trois avertissement bu duggee sa xaalis mën nañ ko commencé ah, dagg. voilà te ñoom li leen di fay boo xoolee du nekk xaalis bu bëree baree bari kon ñoom li leen di dimbali pël mooy bëre jóge fi rek. ah boo sàgganee day. man naa am mardi seen i menace bu ñu demee seen seen duñ fa fekk lu bari. waaw non maanaam li koy indi lenn la rek bëre moom mbër mi day pare ci lépp rek xam li mu war a def. waaye yow reporté ko daa miti déggoo sama baat bi xanaa. Eh! hey door na ko de.

xeex xeex xeex waaw laa bëreel waay soq da war a bëree eh xamul fu mu jëm soq sa bi ci biir xoolal lii oh des bëre des mbete guerre awoy waaw ndeysaan mu mel ni ministre Matar Ba mooy ñëw noonu Matar Ba ministre des ministre des sports Matar Ba mooy ñëw noonu mooy ñëw ci la mu ngi ànd ak maa ngi seen ñaaxarañ loo Assane Ndiaye ngi ànd moom ak Pape Abdou Fall ministre des sports am ngi noonu wér. Eh, cinquième combat nga ngow Boy Mlom à gauche Sa droite xeex na moom daw na jël ko daw na jël ko Boy Mlom jël na ko xar géppen mu bañ Sa bañ na de saa kase bañ na booy mulom dudu ba ka saa kase saa kase lu xew lu ko jam arbitre soufflé waat na booy mulom a ngi koy boo xoolee booy mu la mopp yaram waaye est-ce que xeex na droite eh booy mu la ma ngay daw booy mu la mbaa doo daanu eh booy mu la fi nga dugg mbaa di nga fi génn yëkkati yëkkati yëkkati yëkkati saa kase saa kase eh daan na ko aawa yi daan na ko ba ci koom ne nañ ko wàccal kii yow eh waa booy mu la mi yéen kii lu eh, waay li neex daan ba toog ci koom kii déggul jat de booy mu la mi déggul booy mu ma ngay raam raam booy mu ma ngay raam de daa sonnu de daa sonn de daa sonn mbay maa ngi lay maa lay fay Babsa ba am nga jàmm maa ngi sant yàlla noo dikkee Iba Mar tey waaw Iba Mar ni ma ñëwee Babsa ànd samay mbokk yëpp bawol bawol yëpp ñëw gunge ñii xam naa ne bawol bawol deretamay daw ci deretu bawol bawol mooy daw ci ñoom ñoom ñëpp ñëw nañ wuy si ma ak Sandaga Petersen ñëpp ñi naan yokkal ma jaay la ak waa Medina yàllaa yor ndam maa ngi koy ñaan ndam. combat mën naa gaaw. mën naa gaaw mën naa yéex waaw ñun lu ñu wax rek la ñuy def signature nañ jaay nañ combat bi mais luñ suñ papa ba doon digal rek loolu la ñuy def incha allah. ngeen def daal allah. sa adversaire gis naa ko waaw. liggéey na wala. liggéey na champion la def na lépp lim mu war a def. man it def naa li ma war a def. nañ xaar ba dugg ci géew bi yàllaa yor ndam xam naa ne dinañ ma may ndam incha allah. kontaan ci. waaw. ana Gakou. Gakou mu ngi fi mu ngi ñëw mu ngi ñëw waaw. kon ma xaar ko ba mu ñëw. xaar ko ba mu ñëw waaw kër su baa ngi nii Lamine waaw. baax na léegi arbitre dina sible di nga xam ba xam tën ak tawul. booy bu wow koŋŋ la de. Gakou xam naa wowul. man kay yow laay laaj ndax Gakou wow. arbitre dina sifflé léegi di nga gis di nga xam ba xam booy daga tëna wala tawul. kon ba ci kanam jeex na si kanam. mbër maa lay. ñooy ziar wër Babacar. sant yàlla bu baax a baax. waa Pikine. waaw waa Pikine ñu fi waa Géja ñu ngi ko. tey. ah noo ñëwee a baax. fii am naa fi kii jaaxalu ma. macha allah. borom topp kanam parce que kanam. benn. Paris saint la jóge xoolal ñi tamit Calcio parisien Calcio door doorat Paris saint door doorat ca Parcelles Assainies boo xoolee parisien Calcio ko ëpp parisien ko de waaye parisien ngi dugal góos parisien dugalaat na ay parisien parisien lii nga dug mbaa ding ci génn dugalaat na ko góos e eh, Calcio loolu baaxul Calcio bul xët Calcio de war na dëgër kaliso ba ca Italie xeex ñu ngay xeex e zog parisien ey eh! waaye parisien góosam bi moom parisien góosam bi day doxantu de te ci kanam ak kalso la ko bëgg di awale a ah, woy ardo yóbbu na ko ardo kalso mu ngi lewaato kalso faju dina ba ñëw parisien bu faas kalso ni muy dóore baaxul daa bëgg a fayu kut lu xew lu xew Calcio lamb ji jeexagul Parisien deux avertissement hey e ndaw Samba waa Calcio mi lu ko dal Calcio luy problème am eh Calcio am problème tay de Calcio am nga problème de Calcio am nga problème <laughs> ay waay lii ay Calcio mi Parisien ngi yàq xaram ak Calcio gi Parisien ngi yàq xaram gi ay parisien man day parisien loxoom bii parisen foo jëm Calcio da koo bëgg a daan de Calcio da koo bëgg a daan de parisien dina gaañ Calcio de gaañ na ko de eh! ay Calcio Calcio mi tay des na ko gaañ de waaye yow Calcio eh ay waay Calcio te boo xoolee Calcio pour de Baldé daw na jàppi Calcio dinañ ko gaañ Calcio ngay fayu Calcio ngay fayu Calcio. Ah! Ah, bi combat. Ay waay Calcio ak Paris mi dina waay yéen. waa Kalso fu mu nekkoon Kalso xanaa ja e eh, ndaw waay yéen ay waay ay waay ay lamb ay lamb lii moo tax waaye kat mën a jaboot du seetaan lii borom doom mënu koo seetaan xoolal yi dóor ci kanam gi Kalso xanaa jàngoob xeex e ndaw Samba e ay Kalso mi waa Kalso anay mbokkam Kalso anay mbokkam Kalso anay mbokkam Kalso anay mbokkam e waay ndaw boo xoolee Parisien dafa sew Gueye Camara ay wax ak noonu kookoy Gueye Camara bu faas waaye Parisien mi bari nay pexe de Parisien daan ko parisien ngay jooy parisien gagné na ko ah, mais parisien waaw parisien ziar naa oui maa ngi lay delloo ziar mais parisien yow moo la su mais gis naa ne tout moment rek yaa ngi koy door ay góos ba yàq kanamam ba gagné combat mais damay entraîné ak Bara Ndiaye du contact ak sëriñ Ndiaye dañu may dóor ba sax maanaam ginnaaw yi may xeex ak ñoom xeex noonu lam tooro peggey caméra sontima pegkat ñu koy ñaanal mu yàgg fii ah gars yi amul saaxoo am gars yi amul lu ñu dajul ci man quoi man loolu moom may métti parce que su ma amee combat ni dafa métti quoi bilaay walaay mais ki yow yow tiitoo woon ci combat bi xanaa non quoi naa ko daak ay Bara Ndiaye di di di kii dafa am ko ma soxla mais sa góos bi kan moo la maa ngi gërëm Kara bu baax nag parce que gis naa ni may jàppale quoi waaw. parisien sa yaram gërëm mais ni mu ouvert ci rek xam nga moo ma gën a mira ma jox maa ngi gërëm Kara di gërëm Père Ousmane Ndoye di gërëm Ousmane Noël Dieng waaw ak doomu ndeyam Ahmed Salou Dieng maa ngi gërëm bu baax a baax di nuyu Père Abbas Ndoye di nuyu gërëm Kara Pape bu Colobane gagné téléphonique aw ma fayam lu leen la may jàppale Khadim Fall Codé ma logé Colobane boo xam ne kenn du dugg suba ak ngoon nga choisir xeex bi kese non dama waaw dama war a wane sama bopp nee naa leen bulldozer laa war a soxla moom laa war a bëreel mais lan moo tax ci biir bëre bi xeex bi rek nga bëggoon ak moom waaw parce que perkat daf ma ne poids lourd la doo ko par benn gauche gauche te déchargé woo nga soog ñëw song ko bëre moom fa laa jëmoon sax mais comme temps bi dafa xaw a kii te moom mën dem sax yu la neexee dóor te du mën a mais kilifa yi nag nag dañuy jàng lépp kilifa mais xawoon naa Lale ba, ilahi ho, zila zabaya. Médina la nekkoon mais jóge na fa waaw way jóge na fa léegi Ramdan la ne laasana ko andi Petit Niabour xan la grand menacé Ndiol ak Ndama Leewtoo Petit Niang feu de droite jiital tàngal Lizaas jiital tànku gauche ñu ngi yaa ngi lewaato dara xewagul de mu ngi lewaato me dara xewagul de dara xewagul de arbitre woon leen ci diggu géew bi awoy ah dañu war a bare ñu ngay doxewaat wet di dem ca saaku ya daw na jëli ko Petit Niang Petit Niang ngay dóor Ziza jàpp na ko jàppante Ziza ndengeñ na nu ngay lóorante ca suuf looy xew foofu déet Sisa nga bëgg a def bëgg na ko sol añ waaye Sisa lànk na lànk kandaare bañ Ziza doon bañ xale bi da koo bëgg a burunglu xoolee moo gën a gàtt lu xew combat ngi tiñaa xeex na une dina ko daan lu xew arbitre nu nga cele Petit Niang koy gëdd daw na joor ko Petit Niang dañ lay daan takk nañ la da nga takk na ko caxabal mu bañ eh takk dëgër ba Ziza li nga am dëgër na de dinañ la mboot sukar bi sukar bi sukar bi daan na ko oh sukar bi na ko daan ko sukar bi na ko daan ko ay waay Balde Sisa def na affaire Sisa def na affaire Sisa def na affaire xool Petit daa xaru daa xaru daa xaru ci bëre bi looloy sukkar bi da koo takk ba mu dëgër mu yaakaar day génn moom mu delloosi ko moo tax mu daanu ba jaaxaan lii mooy daanu ba jaaxaan gis nga ginnaaw ni mu takk suuf bi jëli kenn du ko miim Ziza am na expérience su làmb boo xoolee bu ñu dawee jàppante Ziza dafa am loxo yi daf koo takk ba mu dëgër te bi ko takkee ba mu dëgër léegi mu bëgg a Petit di ko jéem a mbot Ziza bañ loolu su kër bi ko maanaam da koo delloo si ginnaaw. Géejawaay xorom de su fa tey Géejawaay xorom de su fa tey xoolal ay hee xorom saa ngay tuuru di. ay saakooy xorom teraanga juré ante lii loo ci non mais kontaan Babacar Assane daa baax lii dafa mel ni fi ne mën nañ ko defal sama xol sax daa sedd bu ñu demee moom naa ko jox beneen kër ga kër ga xam naa yow yaay ñëw de lii rafet na lool waay ew waay combat bu metti bu nara doy waar arbitre soufflé na tey la 4 juillet 2021 stade Iba Mar Diop Assane Ndiaye gàkkoo leen wan ginnaaw école Balla Gaye ca Guédiawaye Boy Dakar école Doudou Baka Sarr ca ñaari tali ak Grand Dakar ak tali waa bu la neexee dugg waago ñaay am na zone A ba zone B nga ca de pied gauche wala ñaari pied droit eh Boy Dakar dugal na gauche droite de ah ji làmb képp ku bëgg làmb danga koy bëgg a seetaan wala nga xam làmb moo tax amateur ci bi maa ngi leen di bëggee ci Gackou 2 Boy Dakar combat ngi ci Equivox TV Boy Dakar foo jëm Boy Dakar foo jëm Boy Dakar tey nga taxaw bëre Boy Dakar lu mu bëgg a fum wala a taxawe Gàkku de bu way am na marché ñaare marché bu bees waaw waaw am na gunaas am na amoya droite ba dem na de droite ba demaat na de Gàkkoo ngi de xanaa da ngeen a bëgg a xeex Malick Gakou numéro 2 eh Boy Dakar mbaa duñ la nga daanu Boy Dakar loolu ngay jël fayu na eh. lu muy génn ci biti di doye Boy Dakar avertissement yu bëri yi mbaa baax na ci yow nu ngay xeex de ñaar ñu tolloo ñaari gune yu tolloo ësle ñaari ñu ësley bëre ñaari ësle kat Boy Dakar daa ës Gàkku daa ës jàppante nañu xeex daw na jël ko Gàkku bañ na eh Boy Dakar ak Gàkku de ay waay amateur yi kontaan nañ billaay xam lamb di tëgg lamb daa neex Assane Ndiaye loolu da koo dal nag moom tëgg neex yàlla waaye daa xam lamb nag ndax lii moom ku ko boole rek jàppal ne xam nga lamb xeex xeex nañu droite yaa ngi dem waaye jël la amagul ñaari xale yu war a dem droite fayu ey loolu dal na de droite booy Dakar boobu dal na de dooraat na ko de dooraat na ko de gàkku jël na ko mu bañ Boy Dakar am nga sens xool bii komba xoolal amateur yi dem na ardo de oh Gakko ngay na ay bii combat Baldé lii neex na ba dàq neex arbitre tey bañ loolu wax na dëgg erreur lay bañ Boy Dakar bëreel Boy Dakar concentré wul nga bëre faw nga bëre Boy Dakar a ngi nga bëre daw na jël ko Boy Dakar jël na ko Gàkku bañ na bii combat du gaaw a jeex billaay combat bii combat booy Dakar booy ave boo amaatee avertissement ñàkk sa komba am nga kaat bul génn booy Dakar boo génnee ñàkk booy Dakar bul génn boo génnee booy Dakar booy Dakar boo génnee ñàkk Boy Dakar boo génnee ñàkk day jeex toppal ma combat bi a faju Ardo Ardo Gakou ngay jeex day jeex jeex na away jeex na Boy Dakar ñàkk na Boy Dakar ñàkk na jeex na away ñàkk na ñàkk na Boy Dakar ñàkk na Boy Dakar ñàkk na mais Gakou félicitations. merci beaucoup. am nga jàmm. ah. ma ne am nga jàmm. waaw sant sant sant bu baax a baax a baax. mel ni combat bi métti na trop. métti na trop. combat bi métti na boo xoolee sama kanam gi nga xam ne combat bi métti na waaw. avant su xaalisu lamb daal métti na balaa nga koy lekk. billaay walaay lamb yombul. moo tax boo da ngay am gor am jom mën koo def waaw. lan la yóbbee maanaam mu mën la touché. ay crochet droit ba gaañ la gaañ yu mel nii. damaa damaa yàqamti woon rek yàqamti rek bàyyi ma sax xel ni moom mooy dóor bi damaa yàqamti pour man pour man pour man bu ma dóoree sax du ma gaañu mais après li ko li kuu yi di bëri day soog a gaañu bàyyi moo xel sax. mais booy Dakar nekk xale boo xam ne bu le naqaree daan teglante ay ndam tey nga fexe ba am ci kaw ci kaw na ndam. waa musul daanu moo tax ma jël ko defi boobu rek moo tax ma jël ko mais booy Dakar maa ko raw maa ko raw si ñi ma daan ñëpp benn génération bi loolu mënu continuer quoi doy na sëg. léegi foo jëm. mag ñi grand yi dañ ma may sama sens. yan yan grand. grand yi dañ ma may sama sens. yan yi rek. ana grand yi amuñu. moo ko indi moom moo gën a jeexal ñëpp moom moo nekkoon si ginnaawam. Tafa Bambara sax dama koy may sens nag dëgg yàlla. waaw. waaw ñoom ma may ko sens. waaw. gars yi budul Tafa Bambara sax man. mais na na na na na na lamb ji ubbeeku lamb ji dafa ubbeekul dañuy moytonte ay tapet ñoo fi bëri. waaw dafa bëri ay ragal yoo xam dañuy moytonte ñun ay moroom lañ ay génération lañ boo amee jom am ngor am fulla am fayda li ngay def doo ko moo tax boo mënee loolu dañ lay moytu gars yi ay ragal lañ. dimanche passé Youssou Ndour a gagné tey yaa gagné. waaw Guédiawaye rek Guédiawaye ca kaw ca kanam victoire yi mooy continuer incha allah. mu mel ni kon mbokk yi suivre Equivox TV. fi ñuy jëm ak yéen nag léegi mooy grand combat bi drapeau monsieur le ministre des sports monsieur Matar Ba Assane Ndiaye Baol production tëgg ko tey tombeek dimanche 4 juillet 2021 grand combat baa ngi ci géew bi li ñuy def mooy wan leen combat bi li ciy xew ba kiy daan mu war a dox ci diggante mbay guy gi école de lutte Bada Dione ak Mame Balla bu Pikine mbooloo borom top 5 kon ñu dem seetaan loolu ab indee ngongu maa la ko noonu xool tey Iba Mar Diop stade bi ni mu mel yaa xool mbooloo mi tey amateur yaa ngoongu toog maanaam boo tëggee lambi amateur waykat yi waykat yaa ngoongu toog tëggkat yaa ngoongu supporter yaa ngoong nga jàkkaarloo léegi Assane Ndiaye tey daa duy Iba Mar Diop parce que nag lamb yi mu tëgg ay lamb tëgg tëgg la tëgg tey moo tax maanaam képp ku bëgg lamb tey da ngaa ñëw mbay guy gee ngoog ci géew bi anima mbal adversaire ba nañ ko xool 2 dañ doon xëccoo taxawaay waaye Mame Balla moo gañe Fils Tête Ba ni na mbooloo tey ci stade bi de combat bu doy waar a boo xoolee Mame Balla da ngay xam ne liggéey na ah way entraîné na de kaay wuyu mbay avertissement benn danga nga benn avertissement pare nga laaj nay siisam tey di dimanche 4 juillet 2021 lay jeex na arbitre soufflé mbay day ñaan wala day jat mbay moo ëpp lu mu takk mbaye féete droite jiital tànku droite Mame Balla féete gauche jiital pied droite jóge Pikine mbooloo moom Mame Balla mbay guy gi jóge école de lutte ba jon combat bu nar a doy waar wallaay maam Balla daa mën a bëree moo gën da diggu géew bi mbay nag xale bu dogu la waaye ndax maam Balla dogu kese koy daan arbitre woo na leen de lu xew arbitre bi soufflé waat na daa bëgg ñu bëre ci diggu géew bi maam Balla li ma la mën a xamal mooy yaakaaruma ne doole kese est-ce que dina ko daan déedéet ndax nag daa mën a bëree te tey jii boo ko xoolee ak nii mu dikkee macha allah te du kon dina law maam Balla liggéey na yaramam moo takk morso bu weex bi ngom boo ngemb noir blanc bi féete gauche mbay ngeen jàkkaar lool moo féete droite moo yor takkaay yu bari yi moo gën a gàtt arbitre na leen bëri leen arbitre bàyyi leen tamit round d'observation si lamb la bokk tey di la 4 juillet 2021 mbay guy gi Mame Balla Assane Ndiaye Baol production moo ko tëgg drapeau kan ministre des sports Matar Ba kuy reporter Babacar ku koy filmer Balde Sali mbay jëli ko mbay loolu du sotti de mam Balla ndax jëli ko noonu dina yombe noonu mam bañ na de dangeen di wari bëre de da di wari bëre de wallaay yaakaar naa dangeen di bëre xam nga maa xalaat ne da di bëre liggéey na te daa mën a bëre tee loxo ba bëggul loxo mbay bi génn mbay ngay bañ ah épreuve de force doole xool maam Balla fi mu tee loxo mbay guy gi da poñe mbay mënta liggéey ci main droite am parce que maam Balla da koo jàpp ba mu loxo ba rëcc loxo ba rëcc na maam koy fàq mu koy faq a ka mën a bëre ak ka mën a bëre Mame ngi koy faq mbay bañ ñu mbaar jàppoo bilay lamb dëgg a ngi yéen a ngi ci Equivox TV wallaay Mame Balla booba tey daa nëbbutu nekk ci liggéey feeñul fenn boo xoolee dóoranteeguñu ay waay arbitre dóoranteeguñu dóoranteeguñu tey bii combat ah Mbaye ngi dóor waaye dóor yooyu taxu koo def effet wala mu ngay door loxo ba droite ba de Mbaye ngi dóor droite am de Mbaye a ngi dóor droite am de Mbaye ngi dóor droite am de waaye na sóor bëre de Mame Balla day fii la daane woon sa mag de xaw nag tey nooy def loolu yow mbay arbitre bi faq Mbaye bañ na faq ba yàgg naa dëpp xale de seenub jàppoo mi tina de condition physique bu yàggee mu feeñ de Baldé nuyu naa ku may siifir wala nga may déglu lu mbay bëgg a def Mame Balla bañ na loola de wallaay du combat bu yomb aka maama sa leer Mame Balla yomb tax faxas bu liggéeye déedéet parce que daa mën a bëre la mu yootoo ngay dagg bëre bi ay tànk amagu ci ba tey mbay combat bu mujj daa gaaw lool te yomb digganteem ak Alioune Seye Junior waaye daa mel ni tey combat duñu benn déedéet billaay combat yi du benn parce que nag kii du ngaaka ci bëre déeret du ngaaka de bilaay bi combat du yomb Balde yaa koy filmé maa koy reporté yàgg na de waaye man ta gaaw ba metti na de jàppante ba métti na de jàppante ba métti na de mbay li mu takkoon lépp ci dënn bi boo xoolee dañ na di lang léegi mbay lépp li mu bëgg ci combat bi Mame Balla da ko koo tere mbay li ko koo aaye mbay ci combat bi dañ ko koo xañ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 ginnaaw bu bëggee ci